neel yàlla waaye orpen boobu ku amee kuruma waxoon na ko xam nga loolu mooy mën a loolu Sonko waay Sonko ne gars yi ne nañ Ousmane Sonko na ko pam pam parat ne woon na pétrole bi daa am ay sàcc ne woon na gaz bi daa am ñum jàcc man nag booy xam nga laa mere man booy sama papa sama yaay laa mere man xamul tax ñu jàngaloo may anglais ay français man pétrole laa waroon jàng ça fait treize millions léegi léegi la laaw mais ñii li moo tax ñu suureew mel ni ay baleine de mer xam nga baleine de mer yow ay tonnes la ñuy pesé comme ay baleine de mer de non barke sulaay sama doom moom dina jàng pétrole si nii wala ci ne ay anglais français sa ma mayewul dara pétrole rek dafa dul sa sama kër kër laa fay jël këriñ gu bëri këriñ lu ñuul rek laa ñu koy gis lu ñuul pétrole këriñ laa fay bu bëri mu ñuul ay jàng ay yeneen dafa am solo jàng yeneen kii amul solo booy ah lan jàng ay ay enseignant doo am sa kër da ngay def pré pré di la rey ah yooyu yooyu noonu man de pétrole laay jàng comme ñoom Aliou Sall Macky Sall gënuñ ñu de Okay.